nañ ko amal ci njeextal atum gi ñu ne maanaam ci weeru décembre gi ñu jëm ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéen kaabidi enquête moom maire de Dakar ba woon xalifa ne ngelawaay na nguur gi sàmmonte calendrier électoral bi te bañ koo jalgati xalifa ne bu ñu bëggee am lu ñu bëgg foog ñu jóg xeex ko leneen ci ay kàddoom ci enquête dellu soit na ci fitna gi woon ci weeru mars gi weesu ne doonutoon askanu jaaxle waaye askan gu lottu la woon mënatuñu woon a dékku jafe xel ne bu ñu bëggee am ndam ci élection locale yi jëm faw ku jéeg bi def ab sayi maanaam boole seen doole di xàccandoo di dóorandoo Khalifa Sall ne na opposition bi dakkal réunion yamuy amal ci salon yi te wàcc ci mbedd mi tàmbalee dagaan baatu askan wi yéen a kaabidi les économies Moustapha Niass mel jox ndam xaat njiitu mi Macky Sall ci élection locale yi ñu jëm Moustapha Niass ne ci googule woote buñ ca opposition bi du ca am ndam du ca am dara ana na mu gisee tolluwaay réew mi yéen a kaabidi l'info xëy ci dalal Mamadou Ndoye mi xam le ne njiitu réew mi Macky Sall digganteem ak askan wi neexatul leneen leen ci ay kàddo moom Mamadou Ndoye gis ne mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko complot politique la Macky Sall bu ci bokkul am na ci cër Mamadou xëy di ñu limal parti yi fi ne te desee tur dong te moo ne de suul nañ leen bu yàgg bokk na ci parti socialiste amatul AFP amatul LD amatul PIT wax noppi ak yeneen ak yeneen Mamadou ne yile parti kenn mënatu leen a ràññee ci géew politiku Sénégal leneen lu ñu mun a taataan ci ay kàddoom ci leen amnistie ana namu du quotidien madame Diaby Siby di directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale ne ci réew moo xamante ne ndaw ña amuñu yar kenn tàggatu leen daanaka musiba la yéen a bi di las ne der bi na mu waroon a taxawee ndaw ñi ba mun leen a jox xëy maanaam yombale leen ñu am koom loolee la kuréel gi boot meeru Sénégal gisul tax ñu yuuxu demb njiital der xamal ko ne na muy doxalee mbir yi du noonu xamal ko ne na muy doxalee financement yi du noonu yéen a bi di sursaane gi ñu denk wàllu napp gi Alioune Ndoye tàmbale naa dakkal ay chantier yu bëri yoo xamante ne ba ba léegi liggéey ba mun ta leneen lu Alioune Ndoye xamle moo dina am na fi ay usines jën yoo xamante ne amuñu agrément maanaam kayit ga ca war amuñu ko benn yoon réew mi quotidien ne am na lu am ca université Cheikh Anta Diop di génnub àdduna Ousseynou Diémé moom mi amoon gaañu-gaañu ci fitna gi woon te doxoon ci diggante Kekendo ak Ndefleng yéene cabinet Ousseynou moomu moomule mu naa ñàkk bakkanam démb ca hôpital libération xëye ñaari tuutànk ya ñu sàccoon libération ne ci yooyu la xale am ci ku ci sant Njaay toll ci ñetti at dañ ko faf faat néewam ñu ngi ko fekk ci wetu foos beneen xale ba sant Mayga toll ci ñetti at waa ja ko sàccoon di Ismaïla Diagne mujjee nañ ko teg loxo yéene kabi di observateur ne ndax ñu teg loxo ñi taxawal série maanaam théâtre gañu duppee ci Adji Sarr te ñu war ko dawal ci weeru koor gi yéene cabinet googule doxalin doon lu metti lool ay avocat Adji bu ñu sukkandikoo ci maître El Hadji tey jii ci altine ji ñu ngi koy xaar ca tribunal ca la fas yéene kalamé ci yoon ñi taxawal googule série yéene cabinet ci lu gaaw gaaya soppi nañu tur wa tuddee ko Baling Kumba Baling maanaam dëkk boo dem def fa lu ne weng